ñu wax ci Covid bi ak gestion état bi comme bokk ci mouvement ñoo lànk ñoo bañ gis nga xeex bu am solo bi ngay def ci kanamu wetu Guy Marius Sagna Fra France dégage euh, tey euh, ban lecture ngay def par rapport ak la situation la gestion du Covid. encore une fois tey taxawuma fi au nom dañoo lànk encore une fois ci la bokk nag mais ñëwuma fi au nom dañoo lànk ñoo ñëpp ce sont mes frères mais dama fi ñëw en tant que collectif pour la sauvegarde des intérêts de la banlieue man je pense que euh, amul bu président bu gën a lajjee. ci doxalin kii ni Macky Sall lajjee ci gérer ko coronavirus bi tey maa nga romb waaye léegi tey ña ngay séddale ceeb ceeb bu ñu leen diggoon deux mois avant mu mel ni ñun dañoo doon ñoo xamante ni dañoo xiif ceeb wala dañoo xiif suukar wala dañoo xiif maanaam lépp lu ñu mën a tënk ci mbir mi mooy il a il a il n'a pas réussi sur ce coup Macky euh, dafa lajj lajj boobu nag liñ ko ci wax rek mooy mu abaissé wu xool ñi mu war gën a waxal mu wax ak ñoom Euh, bu ko defee te muy jëfee nag te mu bañ a doon wax boo xamante ne am leneen lu mu ci sotti politiquement comme moom noonu la ko yàlla bindee mu mu jiijal intérêt Sénégal bu ko defee je pense que lii mën na fi. jóge jàppoo ne gorom bi mu ko jox mooy ni coow lii lépp. no xam nga Mansour Faye mosul dugg ci lu réussir xam nga Mansour fay peut gorom Macky Sall euh, temps yi ñu ngi wax aadama fay euh, rakk ji ñoom dañu doon famille boo xamante ni dañu doon famille boo xamante ni euh, je pense que euh, dégg nañ leen ci lu ne goro beeg rakk jeeg euh, doom dañ leen di dégg ci lu ne. dina la dynastie Faye Sall. et loolu du yoon parce que yaa ngi dégg Adama Sall fii ci wetu Liberté 6 lu mu fa def ak ay population yaa ngi dégg Mansour fay xam nga di wax ba naan ay dama lay porte plainte li lii wane loolu rek mooy dafa jox joxul les hommes qu'il faut à la place qu'il faut dafa joxe rek joxe boo xamante ni daa am lu mu koy séntu wala joxe mbokk te loolu duñ ko yoree Sénégal.